sëriñ baa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abu Baraka mi nga xam ne moo toog toogaa yëpp alaaji lu Mbàkke sëriñ Abu itam fu ko way seen na xam ne benn mi ngi jëm ci ndigal lu ko sëriñ Muntaxa mii fi nekk sëriñ Tuuba jox walla mu bàyyi ko ci ndigal lu mu ko joxoon ba mu mat mi ngi seeral mboolem yépp gën a jaayanteem ak moom ngir jëmmi Serigne Touba di ko sant bu baax it ci ndigal li nga xam ne joxoon na ko ko ci weeru rajab ne ko bis bi ñu daan defal sëñ Fallu Mbakke nañu ko soppi ba beneene nee na xàmmewut ndigal lu mujj loolu mu ko mujj digal ak lam ko jëkkoon digal joxoon ko ci ndigal ñoom la yamale kepp ci moom mi ngi seeral mbooloom yëpp ne leen bu mu xoo bu seet sëriñ bi sëñ Muntaxa bu mu seet lu kër sëñ Fallu di man ak lu ñuy tële waaye nay seet la muy bëgg rek mu di ko digal ñu di ko def yàlla na gën a yàgg sëñ bi nag mi ngi ñuy dénk ñu maase teg suñu tànk gën koo riig ci ndigali suñu borom yi ndigali suñuy borom yi nag yomb naa xam mooy lépp loo xam ne boo koy def danga ca am xel mu daal ndax xam nga fa nga ko teg ba ko la fa fekk ba ko ko ko la ji waaye mi ngi ñuy moytu loo it ñu moytu bu baax a baax a baax ku mu fekkoon mu teg ca tànkam mu teggi ko ci yi nga xam ne mooy safaanub loola safaanub loola it yomb naa xam mooy lépp loo xam ne bu ko nit kiy def bëggul ko ko fa fekk te bëggul ko ko nettali ci yàlla ci yàlla musal yàlla nañu yàlla boole it ci ñi nga xam ne bu ñu ak àggal ak jaamu yàlla dañu koy gunge ak ay jooy bu ñu demee ci alxuraan danañ ci fekk alladina yuutuuna ma aataw wa xulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun ñi nga xam ne buñ jaamoo yàlla ba noppi rawati lu mel ne weeru koor ay jooy lañu koy gungee soxna Aïcha radiallahu anha laaj na ko yonent bi ne ko ñooñu lu tax ñuy jooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo xam ne weeru lëmm jóg na ci seenub dund te du dellusiwaat te xamuñ taxawaay yañ ca taxaw yàlla nangu na ko wala nanguwu ko waaye suñu taxawaay bii ñu taxaw ci koor gi akus néew sëriñ bi neen yàlla na ko yàlla nangu sukkandiku ko ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji wax ne man saama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbihi ak wa man qaama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbihi ku def kem kattanam woor bëccëg yi guddi yi mu taxaw ca lu man di jokku bokk di saraxe di def yu baax yépp ba weeru koor bi jàll la ci yonent bi digle sëriñ bi neen yàlla ñu ko yàlla boole defal nee na it ginnaaw weeru koor jaamu yàlla day wéy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne daa wari ba ca gannaaw suba sa mu umaat teg ca juróom benn fan bu matee dana mel ni ku woor ba àdduna tàmbale ba ba muy jeex ci ab yool sëñ bu mag bi bind na loo xam ne mu ngi ko bindoon ama alsasine mooy 1913 ba mu demee njaareem ba ca déwén sa daa tase ak aw tàngoor tàngooru jamono sëriñ bi bind xasida gi tënke ko fii chahri ramadana alsasin ma ngi ko tàmbalee ci faaza alladina xaafadu ala siyaam chahrin bihi ugliqa baabun lil iyaam yàlla defal na nit ki la bëggoon lépp fii ak ëllëg ñu ne ko kan la mu ne ñi nga xam ne taxawe woon nañu weeru koor wi woor bëccëg yi taxaw guddi yi ba mu mat yàlla jéggal na leen seeni bakaar sëriñ bi nee na yàlla nañ dugg ci waxe sëriñ boo nee sëriñ bi it nee na moom subhanahu wa taala nawet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal yàlla na ci suñu borom def xar baax mu gën ya ko daa jiitu dañ ko daan nettali yàlla bu mu yées benn nawet bu ñu nettali ci lu baax ci baax la cay ñoree kus néew it mënut a dundal nit dundam gépp waaye yàlla na barkeel ba lu ca waay am mu loo ko te jaamoo ko yàlla tam rees ak jàmm di sant bu baax it bokkam yi nga xam ne yépp fekke nañu eh, ak moom eh, julli gi ci barab bii bàyyiwul kenn du mag du ndaw du dëkkandoo du keneen koo xam dafa jóge feneen ñëw fi mu ngi leen di sant di leen ñaanal seen tànki dem ak seen tànki dikk yépp suñu borom def ko ay tuyaaba di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo taxaw wàllu kaaraange gi te am ci barab bu ne fii ci dëkk bi muy ay poste gendarmerie sëriñ bi mi ngi seereel kilifa yi ne leen seeni taxawaay ci dëkk bi rafetlu na ko lool li ciy firnde rek mooy taxaw gii ñu ko taxawul nii mu ko bëggee te sëriñ bi santaanee ko ko ñu ngi leen mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ñaanal suñu borom ak yokkute sëriñ bi nag di dégg fan yi lool ñi nga xam ne dañu fay ñëwoon ci màggalu Kazu Rajab te yàlla dogal ñu am ay gàllankoor ba mënuñoo dellu ci seen liggéeyukaay sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk ñu bàyyee seen bopp ak yàlla te xam ne yàlla digg na ab jaamam loo xam ne déwén la te du lekk ak naan kese kese loolu la ciy firnde mooy xissa bii nga xam ne jàngalekat yi tawxiid yi ak jàngalekat yi jikko yëpp jàngale nañ ko ak nu ñuy bàyyee yàlla ak seen bopp ci bis bu yàlla laajoon malakul mawti mi nga xam ne mooy jël ruuxi doomu aadama yi ne ko dama bëgg nga nettali ma bis boo xam ne daal yëgoon nga ca yaram nguy daw doonte malaayika yaramam du daw ci dara malaayikatun gilaadun shidaad laa yaasuuna allaha ma amara wa yafaluuna maa yumaruun <clears throat> laa yaasuuna allaha ma amara wa yafaluuna maa yumaruun xamuñu bañ ak nangu waaye laaj ba ko yàlla di laaj malakul mawti tekkiwul ak ñàkk koo xamam ndax ba muy laaj Seydina Moussa maa tilka bi yaminika yaa Moussa laajin wow ñu jàng littérature arabe xam nañ ne du ñàkk xam jàngale diggante nit ak kam yilif ba ko Seydina Moussa di ta di tontu néew ko aw yat kese waaye daf ko ne lii sama loxo sama weta dama ci sukkandiku bu may dox di ci faj yeneen i soxla mu teg teggi ne lool kon laaj gi mu laaj malakul mawti bis boo jëkk a daw aw yaram bu soo yaram dikka daw tekkiwut ñàkk ko xamam daf ko doon jàngale nu ñuy wee féete ak yàlla ak lii nga xam ne yàlla noppi na ca ba noppi daf ko ko laaj ma malakul mawtu ne ko am na bis nga yabal ma ci koo xam ne jigéen joo xam ne da doon sogo am doom yàlla na ump jigéen ñi ci des ñëpp bi mu amee doom ci ta ci tooy tooy bi rek jóge gut fa mu tëdd suñu boroom yabal malaayika ma ne ko demal jël ma ruug jigéen jooje bàyyi fa gone ka nee na ko bisu keroog sama yaram daw na lool mu ne ko lu ko waral mu ne ko ku mu fay ku mu fay féeteel yàlla ne ko man mu ne ko bu ci topp mu ne ko bis ba nga ma yónnee ci buurit fekk ñu di ko teertu fanfa fanfar bi di rëkk ñëpp sàppi di ko nekk ba mu ne cëpp bay jaar ci tappi ba nga ne ma dama jël mu ruuga yéen keroog sama yaram daw na ndax teraangaam jaag ña aju woon ci moom yaakaar ko ak lépp nga ne ma dama jëlali ma ko keroog sama yaram daw na lool mu ne ko ñaari xew xew loo ci jàngate mu ne ko yàllaa ko xam mu ne ko xanaa xamoo ne ku dugg ci sama kaaraange dara du ko mënal dara moom la Muhammad al Busayri wax ne wiqayatullahi aghnat an mudaafatin min ad-duru'i wa an ali min al-utumi ne ko liir boobee doon soog juddu ca tooy tooy ba ma la dama yit ma ndeyam xanaa xam nga ne maa ko sàmmoon ba mu doon ba mu doon buur boobee kon bokk sëriñ bi nee na mi ngi sukkandiku ci xadis boobu wax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen bàyyee ak yàlla di leen xamal ne kenn musta yaakaar suñ Tuubaa jaarale ko ci suñu fol yaakaaram di tas seen gàllankoor yooyee lu bare baree baree bari lay la yàlla mën naa def mu fànq lu bare bari den xëccal lu bari loo xam ne bu ngeen ñëwutoon yàlla mën naa def di ngeen ci jot foofa la ko yàlla jaarale kon nañ gën a muñ te gën a dëgër te ñaan yàlla rek te xam ne lu jot yomb yàlla na leen yàlla delloo ci sago ba kenn ku ci nekk li muy liggéeyee moo xam muy nawet boobu ma tudd léegi ak képp ku am ay tool tamit leneen it yàlla na suñu borom te barke te fekk ko ci ak boppam di ñaan nag ñi nga xam ne ñëpp yàlla dogal na seen euh, bakkan jóge fi ñu bàyyi koo fi diggante daaw ak ren rawatina ci weeru koor wi suñu borom gasal na nag yërmandeem ak njëggalam tàbbal leen àjjana ba jéggalaa leen ñun ñi nga xam ne ñoo fi bokkoon ak ñu nekk daaw